lamb ji daf ma jaral lu ne. ma asale góor ma mais dama la ne. paquet du biscuit. benn doo ko Lima li ma ngi jaba tey. li wax ji di gën bari mu gën metti. mais ku bëgg gis prix dur prix dur. xeex mu joo xamante sama bakkan laay teg. man sax biir. rek la yow man man may la wax. man damaa yàqu. waaw maa la nga xottee. ñu tàggoo yàqu di dee. jërëjëf mbokk yi seetaan ci Jambaar News. defalee saa su ñu ngi fii ci arène national Jander production moo ñu fi woo. grand combat bi dox ci diggante Jam Téeri bu Kayar ak général bu Malika. mu nekk combat boo xamante ne yaakaar naa ni combat amateur la. waaye combat la boo xamante ne ñaari xale yi ku ci daan dem ta kaw fekk ci champion yi waaye ci daan ragal naa ni sa carrière lamb di nga xaw a xaar tuuti. waaye combat spécial bi moo dox ci diggante Cheikh Super Jamono menn bu école bu écurie Mor Fadam euh, mu war ci laale ki nga xamante ni mooy <laughs> bàyyi sa bàyyi jàmbur moo war a laale ki nga xamante ni tey mooy euh, feu rouge bu Bosco Sow mbokk yi dinañ leen digtal mbëri champion yi nan lañ ñëwee fas yéene waxtaane waaye gars yi bu ñuy filmer am ñoo xam ne dañuy ñëw di ruube ci cameraman yi bàyyi jàmbur day liggéey moo jaxase général Malika Malika la dëkk yow Malika nga dëkk. jam téeri yéen a bokk cosaan. yàlla ko jam téeri dóor mu daanu. biir waay. billaay waay. ñibbi sama deret la. bokk ndey koy moo ma jàngal bëre. di sama DC. su ma defee leneen saytaane. tey lan la lan la ci combat lépp xeex bëre parce que ñaari gaynde lañ ko euh, li ñuy conseillé jëm teer yi ak li ñu amaana buñ jiyee dinañ ko ko mais en tout cas lamb bi lamb garmi la ko général su ma jumul yaa mujjee am ndam ci ko waaw daan naa ko deux fois. daan nga ko deux fois mais loolu du dara lamb ak lamb jam téeri contact nga ak moom. yàgg nañoo contact mais contact guñ ci combat bi. waaw yàgg a mm-hmm. mais ñoom ñaar ku ci nekk yaakaar naa ne am na ko jàpp avantage ci wàllu jàpp mais am na ko am avantage ci wàllu bëre ñoom ñaar kan nga gis. ni moom waaw léegi xam nga booy wax mag ak rakk nga bëgg see génne avantage day miti quoi man daal pour man jam téeri moo avantage yëpp incha di ñaan yàlla yàlla sutural oh. manuma analyser lamb boobu. dama déggoon ni tey da nga waroon ñëw signé contrat yow ak beneen mbër lan moo tax combat boobu taxaw. waaw loolu ba tey ñu ngi ci parce que xam naa ni dafa xaw diir bi moo xaw a gàtt tuuti rek léegi am na tardement ci lañ toogaat xam naa ni incha allah fii ay fan tuuti rek dinañ dégg combat bi. taxaw non ku ñëw ba. non ki ñu wax ba mu da ngeen déggoo. dama leen ñu ngi may wax adversaire yu bëri cinq ku ñëw ba. ku ñëw ba. cinq yi fu ñu dëkk. biir Dakar. ñi mën a xeex la wala ñu mën a bëre. taaman xam nga moom jànjeg. lu tax wàccatoo. waaw mooy li ñuy wax rek bu ñu amee contrat incha allah di leen wàcc parce que xam nga làmb léegi soo commencé wàcc euh, simple boo commencé jër combat yi day xaw a jafe quoi léegi nag ñu ni comme nañ ko jéem a muñ rek xaalis bi neex na mais nañ jéem a muñ ba yàlla may ñu contrat jàmm parce que ku wax làmb xam ne arène quoi. mais li simple bi moom dañ ciy bay suñu waar pour nekk nii mais pas dañ ciy concentré. macha allah tool jaajëf. jaajëf Baye. noo noo ñëwee. sant yàlla bu baax. jeex na de fi toll jëf rek waaw incha allah moo daaka bëre moo daaka xeex man maa daaka daan te incha allah dinaa ko daan ñëw waxaat ak yow baa Djily. Ah. si kattanu borom bi. mais lépp jaam. lépp jaam añu ma. añu non tant que daanu lekk dañ maa sas. làmb ji du fii quoi sama làmb ci kanam la hmm. waaw ci kanam maa ngi daan ñëw wax ak champion la ndeysaan. ma nga noonu ci débat démb mbër maa ngi mais démb la nga bëre xam nga ko. non ay ndaw rek dañuy jàng rek. billaay dañuy jàng rek. loolu jàng rek ànd ak suñu kër sa kër sa door. waaw ak suñu mag Farouz. loolu yëpp ñoom ñooñu ko jàngal. barke alxuraan. di ko ñaanal ndam bu sedd guy te gaaw si barke Seydina Mohamed. na ma gaa yi lamb dañ see bokk. te ñu ngi def suñuy preuve. nañ ñu jox si gars yi si kaw te gars yi ñu taxaw ñu jàppale ñu soxla nañ ko dañoo bëgg ñu jàppale yàlla tax bu ñu jàppalee ay champion la ñuy doon. mais démb sa adversaire bi mu sumee ko nga sumee ko ci digg géew ñëpp newoon nañ tay moom da ngay dee moom tay nga dee mais xeex bi nga wane jom gi nga wane njàmbaar gi ak ni nga ko daanee gëmoon nga lool. non man chaque jour combat yi yëpp dañ naan ma tay ngay dee doo si génn yàlla di ma dimbali làmb xamaguñ ma nag si kanam lañ may xam làmb ma nañ ma jox si gars yi si kaw. nañ ma jox si gars yi si rek. du ma lim adversaire yi bëri nañ fi yéen xam ngeen ñu ma war a bëreel ndax man ak yéen ñoo bokk làmb ji ñi ma war a bëreel xam nga leen. ñi ma war a bëreel xam ngeen leen bu baax. mais Souleye démb moo nekkoon sa ñaata combat. démb moo nekkoon sama neuvième combat. ñaata am naa sept victoire deux défaites. macha ay kirikoog booy pool ak dofu jaasa ñu ñëpp maa leen daan. yaroo baax mi maa ko daan ay ñàkk jëriñu bu xéewal gi ay Papa Sambel ñoo ñëpp maa leen daan billaay wallaay ñaari défaite rek la am mais leneen lépp ay victoire la sept victoire la am deux défaite waaw mooy loolu maa ngi koy jaajëfal Souleye Gaynde champion la boo xamante ni bàyyi leen ko xel ci làmb waaye ñu ngi ci mikaay Farouz Farouz doon daanaan doon champion liggéey ci làmb lu bare bare bare bare yoonu Farouz du woon fii ci làmb noo def sant rek maa ngi jàmm baaxam la sant bëre ñaar ñëwee. non ndam rek incha allah. booy bi ngay bëreel nee na yaa dàq bëre. nee na yaa dàq xeex waaye moom moo dàq daan te ku ne xam na ne ci wàllub làmb fi ñuy xaar Faurouz du woon fii ci làmb. waaw mais léegi dans pexe bi àll ak dogalam ñun comme ñu ngi nooy booy bi rek nag sant yàlla. waaw wax la nag wax nag lu garaaw laa leen rendez-vous incha allah tey ci kanam tuuti. bu ah. ragal loolu xaar xaar leen tuuti bientôt incha allah. li ma la bëgg a a yi damay rafetal bu armée bu général Malika bu benn baraak bu Malika bàyyi naa la. waaw mais man sa mag laa boo ma bàyyee bàyyi sa mag boo ma bàyyee bàyyi sa ndax deret dafa fort danoo bokk ma yow lu mu mënta séddoo dañuy ànd rek incha allah. mais général indee tey. waa indee nañ ko ci nag xel mu dal xel mu dal ak liggéey bu sérieux am nañ ci yaakaar. bu ci kanamee tuuti lépp dina leer incha allah. importance su combat bi yéen xam ngeen ko wala général Malika xam na ko ndax adversaire bi mu jël dafa am benn bëree ak xeex boo xamante ni jafe na ci mbëru làmb mu am. waaw loolu dëgg la ndax Diam Terry koo xam-xam ni champion la mais bul fàtte nit général champion ndax moo jël champion d'Afrique jël meilleur leader simple 2024 jël meilleur leader simple 2019 tegle ñaari doon drapeau chef de l'état ñaari at mu tegle ko. bu demee ba am lu muy xalaat ci jam céeri ci kanam tuuti kon day tekki ngembam bàyyi liggéey na noog moom liggéey bu séeréer li ci des yàlla moo ci des ñu ngi ñaan yàlla yàlla mi nga dara sowu ko yàlla mottali des nga am ndam loo xamante bu nu jig la loolu la taala Diop kilifa gi maa ngi lay nuyu ñu lay ziar noo tudd Mbodj Mbodj président seen sabor de camion région de Dakar ta euh, lamb ji moom comme niñ koy wax rek lamb ji waajal nañ ko ci lépp c'est pour ngeen xam rek généralement gën a li sport laaj muy dal teey andi mbooloo lépp jëf nañ ko waajal nañ ko ci lépp pour làmb ji lu mu ñu làmb ji lépp lañ jaral bu dee nag see dem na ba jam teeri mi mu ciy xalaat dubee kon jarul ñuy xalaat roi des jam teeri lu mu andi ci kàttanu yàlla bu duggee fii ngeen gis di ngeen xam ne général maa gën. jaaxal mbooloo mi mu indi tey musuma ko gis ci làmb. xam nga lu ko yi lan lañ dajale. xam nga lu ko waral moo jël boppam ne chauffeur camion yi ak transporteurs yi man maay seen mbër. jëlat bopam ne mbërum faramaren xaritu wali man may xaritu wali sek. mu jël bopam ne wali sek moy man may mbërëm kon yoon lañu mobiliser lu melni man ma génne camion yépp ak tala Diop gën jënd bolog yi ne ko na mbolo mepp ñew camion yi gis ngeen image camion yépp yépp no mbolo mi andi leen zé magna xam nga lu ñuy wax autorité yi nek yëmbal kermassar département bi bun nañ jappalé général général doomu dëkk bi la ñom nañ bayyi wali waan bi sa jappalé sen doomu dëkk ñun bu dul dara Ablaye Diop xaas lu nekk la ko see defal ci àdduna tey Ablaye Diop xaas buñ ko njëkkee dégg ginnaaw yàlla général la war na jomb général am bis muy jëndal ay Ada Fass un million bolok mënut a jëndal général cinq bolok loolu dafa ñaaw maire Malika gisuñu ko du dara lum ñu andi du ñaar dërëm yu mu jox général maire Yembal noonu maire Kër Massar noonu général doomu dëkk bi la boo génnee Pikine ba Ndar général moo fi champion nañ ko jàppale ñun ah, Talla Diop mi ngay gis moo génn ay moyen am ma génn samay moyen génn samay oto mu génn ay oto mu génn xaalisam teg ci mbooloom yëpp ay camion la leen barke Seexul Xadim lii ñaaw na nag mu yeewoo Malika diggante yembal département bi benn autorité jàppalewul général loolu dafa ñaaw ñun ñoo jël suñuy moyen génn suñuy million jënd ay billets ki bolok jox ko nit ñi lii ñaaw na nañ si gën a teg loxo ñu ngi koy ñaanal ndam si kàttanu yàlla yàlla dina ko may ndam ndax liggéey na ko jaajëf ayca naa leen wala naa leen général Malika doomu Malika benn baraak Kër Masar Mbëbës Ñàqurab Daaru Cubb Mbambilor Jaxaay mbër moo xamante ni ndaanaan la ci làmb moom général Malika bari na ay takkusaan yoo xamante ni topp naa ko teree gaal gi naa ko adresse Senghor top nako ko Joal nako basul ko nako topp naa ko ah, Bassar topp naa ko Ndangaan Samb mom general Malika bari na ay bis yo xamante bu ñewé bu duggsee and ak concentration ak détermination mu né dama koy jël kenn mënul té mu bis nak dafa bëré ñett combat yo ci kan, gan xàmmeewuñu ko diggante ak Fils de Balla daa ñëw gars yi xàmmeewuñu ko diggante ak du kenn xàmmeewu ko waaw mu nga noonu moom général cay sotteew mais mais mais général xanaa su ma lay nuyu sax nga fay ma au moins suma lay nuyu nga fay ma. fay naa la ah lu ma sañ. damaa kontaan ma waaw li nga sañ ma trop jiili. mais ci jàmm. maa ci jàmm baax. tey noo ñëwee. ñëw ànd ak waa Malika yëmbal ya, ya, benn baraak buun Kër Massar àll ba ñaax montagne boobu si waa ñaax ñaax rob caan kibu ak samay xarit ak samay mbokk ak samay am di mais ya. dama gis lu ma musul gis mi nga indi Malika musul indi mbooloo mu ni mel ci yaakaaroon naa ni sax jam téeri da lay noyé ci supporter mais li nga fi indi amul sax mbër bu mag waaw si noonu la noonu la demee ñii amuñu seen fay vraiment ñii moom dama leen di ñaanal rek di ñaan yàlla suturaal ma defal ma ndam à suivre xeex wala bëre lu laaj cey général nee na à suivre xalil kii mooy mbëru kayaar xalil kii dëkk bi muy jóge dëkku mbër la gox bi muy jóge goxu làmb la gox bi muy jóge bu jugee mbooloo mu bari dañu koy topp waaye mën na bëre mën na xeex am na jom bëgg na bis mbëru daa sumaare la lay bëreel moom jam téeri ndeysaan sama xel dem na ci daaba bu jam téeri ndeysaan xel ma xam naa ne Espagne mu nekk xel meeg yaakaar bi yëpp ma nga ca làmb ja ndeysaan cay Dabo jam téere ngi noonu ñoom nag ñoom ñaar ku ci nekk ñu ngi ci débat déb ñoom ñaar ñëpp ñu ci débat déb ñoom ñaar ñëpp ci débat déb pare na mu ngi ci dernier réglage yi bi nag ay tegtal ki i ak sarax ngay tal waye bo duggé ci duggi gëw bi ba combat bi intense métti gàllaaj yi ya commencé la sonal ngay commencé di dag di sanni di wacc ma nga nonu nday sa moo tax làmb daal la gàllaaj ak lamb ben mënul dem baye morom waye lamb ak entraînement ben mënul dem baye morom ba moo tax làmb daal làmb la tudd mu ne ko làmb daal làmb la tudd cey jam mi ngi làmb de waaw ma ngay làmb baay baal mu toll nii làmb ngi cey làmb cey jam teeri fay baa yaayam jam sant Sëriñ waaw sant yàlla rek yàlla rek ànd samay mbokk rek ñëw ñaan yàlla yàlla may ma ndam. tey combat bi lu mu laaj. lu mu laaj mu jox. lu mu laaj baax na lépp. lu mu la nga wuyu si. laaj baax lu mu laaj baax na. dem la lu mu laaj baax na. ah lu mu laaj baax na. bi xeex lu laaj baax na déggoo wax lu mu laaj baax na mu jeexal nay wax lu mu laaj baax na. fu mu bubb dinaa ko fay. mais tey dama gis seen dama gis jam téere bu moom gëj a gis ci làmb tey dafa mel ni dafa am loo bëgg te danga koy jël si te du général moo la koy teree jël. incha allah kon xam nga loolu rek baax na. non loolu laa gis. waaw mais mbooloo mi mu indi moom it nee na Kër Massar Mbëbës àll baay ñaax kenn demul mu des tay li ñu ko indil. mënuñu koo teree dara doo doo loola jël. incha allah waaw lu mu laaj loolu laay def parce que dañ waa ji ne dañ maa yàkkamti dañ maa yónni yàkkamti man loolu moom loolu jaaxaluma ba may ba ma toj toj boo bëréewu kenn xamu ko ba arbitre yàlla na la yàlla suturaal may la ndam sama xarit nga sama doomu ndey nga yàlla na la yàlla suturaal loo daj ci làmb rek yàlla na yàlla yàlla na nga ko fayeeku tey ci kàttanu yàlla te yàlla mën na ko dina ko def mais nag ah. làmb ji dafa laaj sama lu ma il wex kaani nga doog ko daan dëgg la incha allah na nga ñoo far ay ca mbokk yi arbitre bi sifflé na combat spécial bi Cheikh Super moo la féete càmmoñ feu rouge léewtoo nañ rek jàppante bopp xeex dóor na feu rouge dóor na Cheikh Super Jamono bañ na jàppante nañ ñoom ñaar feu rouge Cheikh Super Jamono ñu ngi ci combat bi feu am na lu muy cherché Cheikh lu muy def jàppante nañ bëgg na jàpp geñoo Cheikh bañ ma ngay dóor uppercut ci suuf uppercut Cheikh ma ngay fayu plaqué feu rouge bañ Cheikh Super Jamono feu rouge faqat na bañ naa ñu ngi ci bëre bi Cheikh Super Jamono faru suruxal na ko mu bañ ñoom ñaar combat bu nar a ndax dañuy bëre Cheikh Super Jamono Farouz ñoom ñaar ku ci nekk la wax wax na ko dañuy bëre jàpp na Cheikh Super Jamono mu ngi yootu ngemb amul Farouz ma ngay yóotu waaye ba tey loxo yi benn jàppul ñoom ñaar kenn amu ci ngemb fàqa na ko seex tension moytul ki ngay bëreel ndaanaan la bu la seddee cër danga ko koy delloo cay feu làmb daal a garaaw mbooloo moom daan indi Iba Mar ku ma waxoon tey fi Ama pada samp tankam Boy Niang tek fa tankam du fa tek tank waye nak lamba ngi ni dimas bu jot koo yaakaarul won mu don champion don champion Dimas bu jot ko yaakar mu don champion Yonam xawa a taga témbe waaye ñaar jappante nañ fàqat bañ na Cheikh Super Jamono Farouz jappante nañu Farouz Cheikh Super Jamono ma ngay yóotu gàllaaj ja ma ngay yóotu ci gàllaaju tànk la jàpp seex fam jàpp baaxul waaye se waaye Farouz loxo ndi joor bi jàpp na fàqat na ko mu bañ fàqat na ko mu bañ Cheikh Super Jamono Farouz Cheikh Super Jamono Farouz xamoon naa ni combat bu metti lay doon bett ma ndax ñaari mbër yi dañoo bëggante te ay mbër bu ñu bëggantee suñu bëree nga xam ko Cheikh ma ngay jàpp ca gàllaaj ja ma ngay jàpp ci gàllaaju Farouzi ndax ñoom ñaar ku ci nekk danga am avantage ci combat bi waaw ma ngi koy dajale Farouzi nga koy dajale Cheikh Super Diamono feu rouge arbitre bi nee na bëre leen arbitre loo li ñuy def ni weesuwul bëre li ñuy def ni ñoom ñaar weesuwul bëre lu xew lu xew Cheikh Super Diamono feu rouge arbitre bi àtte na àtte kaay leen ci diggi Cheikh Super Diamana ngemb gu baax la ngemboo ngemb gu baax a baax la ngemboo ndax ngemb li doom foo jàpp arbitre bi sifflé Cheikh Super Diamana moo la wan ginnaaw Farouz moom nga jàkkaar lool ndaysaan journée production grand combat général Malika moo fi war a bëre ak ki nga xamante ne mooy jam téeri ndaysaan mbokk yi ñu fàttali leen tuuti rek tey mooy dimanche 3 novembre ay door na rek jàpp laa ilaha illallah laa ilaha illallah lay laa ilaha illallah Cheikh Super Jamono mu doon tànte lu garaw waay daa mën a bëre moom Cheikh Super Jamono ndaanaan la ndaa ndaanaan la daa mën a bëre Cheikh Super Diamono arbitre bi sifflé na lu xew fu ñu tolluwaat arbitre bi laaj na ñaari mbëri sifflé waat na Cheikh Super Diamono moo la wan ginnaaw Farouz moom nga jàkkaar lool journée Diender production ndaysaan ña nga ca combat ñoom ñaar ña ngay lewaatoo ña ngay lewaatoo ñoom ñaar seex dóor na dox na ci kawam xeex na Farouz fay na tey Cheikh Super Diamono mi ña ngay xeex daa bëgg a gaawal combat bi Cheikh Super Diamono ak Farouz Farouz Cheikh Mbadou daa nar a veeral feu bi def ko feu vert ku romb du taxaw laay dóor na dal na dal na Cheikh jël na ko jàppaat na ko Cheikh Super Diamono feu rouge Cheikh jël na ko ñoom ñaar da ngay bëre Cheikh Super Diamono feu rouge laa ilaaha illallah ñoom ñaar seen combat bi metti na Cheikh xeex na xeex bu metti daw jël feu rouge Farouz jàppante bee ko arrangé Cheikh Super Diamono xeex bee ko arrangé day génn daa bëgg a duggaat xeex Cheikh Super Diamono mii xam na li mu bëgg xam na ko de xam na ko xam na ko de day bañ sa waay jàpp ci gàllaaj ñu ngay lewaatoo arbitre bi siflewaat na tabi do bu jexé Cheikh Super jamono day ñak ndax ci wàllu avertissement mop su doon may mom vite fait damay gawal combat bi ndax soko gawalut ba tabi jexé ni mën nga ñak salam waye bu lamb ja neex neex neex ma nga fatani le 24 novembre fi la ci arena nationale combat royal Modou Lo Siteu ndaysaan dina doon làmb ju neex bu yëngu ak jàmbaar production ba tey ñoom ñaar ñu ngi lewaatoo ña ngay lewaatoo ña Cheikh Super Diamono ak Feu Rouge Feu Rouge daa bëgg a déclencher xeex bi sànq bi ñu xeexee Cheikh moo avantage wu woon ci xeex bi fan la ñuy toll Cheikh Super Diamono moom dafay dafa yàgg nangu combat bu yàgg moom combat moom day nangoo yàgg moom moom Cheikh Super Diamono dox na ci koom door na Farouz exige Farouz exige coup bi ñoom ñaar ñu ngi ci door na door na ko tànk dox na ci koom Cheikh ma ngay dox Farouz da ngay jokkaas jokkaas a taxawal Cheikh ma ngay dox ci koom Farouz Cheikh Farouz Cheikh Farouz door na Cheikh daw na jël ko daw na jëli ko Cheikh Super Diamano daw na jëli feu rouge jàppandewaat nañu lan moo nar a xew Cheikh boo génnaatee saako yi ñàkk boo génnaatee saako yi ñàkk Cheikh yëngal na bopp bi lan la lan la Cheikh nee na li mu jàpp ci ndigg Cheikh amna trois avertissement Cheikh Super Diamono jël le troisième avertissement tu combat bi ma ngay lewaatoo Cheikh Super Diamono càmmoñ ñu ngay lewaatoo ñoom ñaar ñoom ñaar ñu ngi ci combat bi ba tey arbitre bi àtte na temps ba jeex na Farouz am na ndam Farouz am na ndam Farouz am na ndam Farouz am na ndam ci kaw Cheikh Super Jamono am na ndam ci kawam 他就干一干 nag combat yee yàgg beneen bi heure julli bi xam nga da daan def ba vingt une heures mais léegi dafa jege jam teeri ma ngay sotteeku rek de général ma sotteeku ñoom ñaar ci déeba déeb ñoom ñaar ci xarfa xufa millions yi ñu leen joxoon xaaj bi lu ci ëpp def nañ ko ci gàllaaj xaaj bi lu ci ëpp jox nañ ko mbokk yi fi mu toll nii di ñàkk ci mbëri koo xamante ni ay bor rek lay amé du ñak ci mbeuri kenn ko xamante ni ba mom la ja nek bu dee kaye 32 pass la mun naa wax fiesta waye waaye ah dañu xol importance bi gàllaaj bi am ci lamb ma ngay wër jam ciéri day wër delu ci wat ñoom ñaar ñëpp ay poids lourds ku ci nekk la le minimum mun naa dépassé wala mat na cent dix huit kilos bala cent dix kilos gàllaa ji dañ ko doon tere wala président bu bees bi bañut loolu ay lay la laaw jam teeri sotteeku da ah règlement bi fi amoon président bi ko fi tere woon jugee na fi règlement ba dañ koy maintenir ba tey wala général indi na taba tama tëggal na ko te tëggal na ko tëggal na ko jam téeri bañ na koo dégg tëggaat na tëggaat na tëggaat na jam téeri dégg ko cey tama bi am na luñ koy rëggal moom jam téeri ci suuf lan lañ koy bindal ak ki koy bind mooy kan <laughs> loolu dafa am solo am na luñ lay bindal waaye kan moo koy bind ak kan la koy bindal ak kiy bind li muy bind fu mu ko déggee fu mu ko xamee ay lay la laa picc yaa ngay naaw picc yaa ngay naaw picc yaa ngay naaw picc yaa ngay naaw jëm Malika picc yaa ngay naaw picc yaa Jaxaay picc yaa ngay naaw Daaru Cubb picc yaa ngay naaw jëm Mbëbës jëm àll baay ñaax waaye Diam Terry na tànk bi ba mu sës ba jeex na minute bu ne ñaari junni minute bu ne ñaari junni boo ma dix minutes cent mille francs dee ay waay bàyyi leen ci xel waay bàyyi leen ci xel waay man nga ay waay bàyyi leen ci xel waay bàyyi leen bu leen dagg seen xaalis Malick Ngom toog na jeudi dimanche ñi mu njëkk a dagg mooy général Malika ak jamtéeri ñoom ñaar ku ci nekk ñaata lañ leen war a dagg ndax temps moom dépassé nañu général xaaral li nga bàyyi CNG jam téeri xalaatal li nga bàyyi CNG ah weccit la de ndaa nga noonu ndaa maa nga noonu ndaa la génnee ndaa ndox ma cay nekk fu mu jóge gàncax bañ cay def fu muy jóge ka cay ñaan ku muy doon bokk na ko moom jam téeri général na moom it lii tey lii tey lii tey ak wodd bi dindi nañ woddoo woon dindi nañ ni mu moom général Malika ni mu woddoo dindi ko ma ngay takk ndomba bi général ma ngay tokk ndambali général takk ndombali Senghor ya lay takk Senghor ya lay takk moom général Malika Senghor ya man xoolale moom général bu Malika Diam Terry am na lu mu sànni tëmbal na ko ci côté ci meekaay général général Malika ngay tibb tànk jam téeri dañ ko dóor ko fi mu doon doxee cey lii mbete ku yor lim càkk de ma ngay dongali moom général Malika lan moo nar a moom général Malika tey gàllaaj ji bari na wax ba jeex na heure yi waroon naa fekk ñu bu yàgg gàllaaj gàllaaj gàllaaj yu dul jeex jam teeri soteekul sa nag moom kay waajo soteekoo moom jam teeri général tamit moom it mu ngi gàllaaj rek ñoom ñaar seen gàllaaj yi bari sotteeku na ko général a ngay dongali ma ngay dongali niin no batt moom général Malick ma ngay daw pour génne première souffle bi naam xam naa du yomb jam génn na saako yi génn jam teeri général Malika jam ngay waaj a duggaat ci géew bi jam téere gi noonu ma ngay dongali jam téere ma nga noonu ndeysaan arbi baa ngay seet jam téere général nag ma nga ca débat ay ca lan moo ci des wane na ginnaaw jàkkaarloo waa Kayaar moom jam téere arbitre bi nee na ko c'est bon pare nga kon kan moo ci des général Malika ma ngay diwoo benn suuf bu xonq général Malika ma ngay diwoo suuf bu xonq général Malika jam ma ngay wis wóor na général ma nga dem ca arbitre ba aj na loxo ba wa yëkkati na loxo bi làmb nañ ko làmb ci suuf wane ginnaaw ajaat na loxo bi làmb nañ làmb ci suuf albi bi lu fomp ko dafa tooy dafa tooy ndaysaan ma nga ca ñu ngi koy fomp ñu fomp général ña ngay fomp général Malika ña ngi fomp nee nañ ko baax na dellu sil ay ca arbitre ba ñëw na ci géew ba om am na lu mu làmb ci suuf sànni ko ca kaw général Malika général a nga koy déglu arbitre nga wax ak ñoom ñaar règlement bi li mu nangu ak li règlement bi bañ ndeysaan coup de sifflet moo leen boole moo leen tàqale làmb ji règlement yeeg texte yeeg changement yi dara changé gu ci laaj na ay laaj na yeneen juge bi laaj na général nee na pare na laaj na jam téeri na pare na arbitre bi sifflé na mbokk yi il est dimanche 3 novembre 2024 arène nationale Diender production il est 20 heures 6 minutes général Malika moom nga jàkkaar lool jam téeri moo la féete ginnaaw jam téeri jiital tànk càmmoñ général jiital tànk càmmoñ jegante na ñoom ñaar combat bu nar a gaaw dóor mu daanu ragal naa ni naam ci combat bi ci kaw ñoom ñaar ñëpp ñu dëggal seen bopp ci wàllum xeex bu ñu jàppantee gëm naa ni naa gaaw kii jam téeri avantage ci combat bi mooy xeex ak général avantage ci combat bi mooy jàppante ki nga xamante ne mooy jam téeri ñu bëre ndax ku ne xam na ne jam téeri mbër la moo xamante ne mën na xeex bari na ay combat yoo xamante ne daf ko kaawo adversaire am général Malika ku ne xam na ne mbëru simple la bari na ci lutte traditionnelle bi def na ci liggéey bu am solo jël ay drapeau chef de l'État génn tournoi CEDEAO jël ko jël ay lutte simple kon général moomu wàllum bëre ndaanaan la ci waaye ñu ngi leewaatoo jam teeri ni muy leewtoo na moytu général tee loxo boobu dóor la loxo gauche loxo droite bi jam teeri attention moytul loxo boobu nga jox général wóorut waaye ñoom ñaar ñu ngi la na xeex cokkaas na de général du reculer général du reculer ndax jam teeri doon na général fay na jam teeri nee na foofu nga dóor baax na général su doon maa yow doo dëggal sa bopp ci wàllum xeex ndax jëm téeri naar la kenn du ko woo guuxum soow te guuxum soow mooy xeex maa xa ko wax dóor na ko day dal dóor na ko dóor na xeex général fayu na général fayu na général dëggal na boppam de dëggal na boppam kaawoo dóor mu daanu dóor mu daanu dóor mu daanu dóor mu daanu dóor mu daanu dóor mu daanu laa ilaha illallah dóor na dóor mu daanu général dóor jam dóor na général dóor na dóor dóor dóor dóor dóor gàlla ñaa ngay dagg dóor dóor ña xeex laa ilaha illallah <laughs> waaye sama xol seddu na waaye macha allah ña xeex la waxoon xeex ak bëre jamteeri jéggi na saaku yi général da koo bëgg a dugal ci biir général da koo bëgg daa bëgg a moom jam teeri général jege nañ yi génn na général jël na ko daan na ko daan na ko laa ilaha xeex ba daa met jam teeri daa jël ku oh kanam ga nàcc na kanam ga nàcc na oh général wane waat na boppam ci wàllu làmb général tey indiwaat na beneen général Khalil xale bi waneeti na boppam oh waaye xale bi wane na boppam waay waaye général Malika wane na boppam waay. lamb ji dama jaral lu ne. man góor du asale góor du ma mais dama la ne paquet du biscuit benn doo ko yëy li ma waxoon maa ngi ci ba tey li wax ji di gën a bari mu gën a metti mais ku bëgg gis bëri duur bëri duur xeex naa mu joo xamante ne sama bakkan laay teg man foo sax bugguma ñàkk waxuma laaj nag ñu dugg biir koo rek maa la gën a xotteeku fuuf xotteeku yow man man may yàqu la wax man damaa yàqu waaw maa la gën a xotteeku ñu tàggoo yàqu di dem